jafé jafé ñi nga xamni faaw yu yoon dal seen. xam nga nguuru Macky Sall gi tax man leen man leen dañ ñuy fontoo. Mhm. Macky Sall kañ la signé ak wa Arabie Saoudite ndoxum geej mi ñuy ségg fan bi mujj yi mi wara dem fan yu mujj war dem biñ ko gagné. delu wat leen ci bi man wat leen ci bi Mansour Faye nekkee ministre de l'hydraulique le jikko a signé ak xawma ñaata milliards. y avait pas est-ce que doon 400 milliards bu mu juumul. Mhm. fii lañ ko wona commencé mamel gi ci Wakam.

au bi ñu def ci contrat de euh, défermage bu ndox ni ak Mansour Faye bii moom audit bi mom audit bi mom lu baax a baax la ah, waaw waaw. Mm-hmm. Ah, waaw euh Dakar Dem dik opération déguerpissement ok du lolu ma ngi ñew ci Jomaay. <laughs> rapport rapport euh, juróomi at yu OFNAC nee na yooyu yëpp ñaar dong moo ci disponible gul woon bu 2002 2023 et c'est yëpp disponible na si parce que am na ci benn boo xamante ni bii mooy euh, bi téere Pape Alé Niang ba téere Pape Alé Niang bi rapport la mooy gestion Cheikh Omar Anne Kuddu boobu day leer après Cheikh Omar Anne aussi day leer après waat day leer ba suñu joon yàlla tey day leer wuy ma kudd même diggante daaw ak ren nañ ko audité daaw ak ren kese ah bu leen fàttali ni kudd bi rëy daa la de nous tuumaal ko manifestant yi. Mhm. fa nekkon Nous ah. yu beuri yo xamne tay mënuñu ko justifier ah, na mhm. day mhm. day affaire foncier euh, ko Dakar mais nañ xol ñen ñoo continuer ay travaux sous préfet ba continuer di ñan lañu travaux bien sûr. am na ay travaux yi nga bàyyi Moussa boo hmm. demee Almadi lii tribune bind téeméeri dëgg la wuy ma man minuit laa fa jaa fekk ay travaux dafa am sama benn xaritu soxna bu jëkkëram du sénégalais ñëwoon fii musuñu gisantee jabaram recommandé woon ko ak man pour ma gis ko au moins nuyu ko ñu xamante bi may am jot dafa dem faisait une heure du matin guddi woon na ma ni naa dem ziar ko mu def appel vidéo soxnaam mu xam ni sama jot bariwul mais ziar si naa une heure du matin bi ma ñëwee fii yéen kaay bi wax ma jàdd biir almadi ci guddi gi laa fa gis ay travaux. ah wow. kon Dakar Je espace suuf wax mais espace suuf bu toll noonu sax la gëmul woon ni fa d'abord ah de xam naa aéroport jëm nako na jëm jëm na côté ni ah de dit de na une heure du matin Baye Moussa ñu tal projecteur mu jaaxal ma lool man pratiquement heureusement dañ ma envoyé géolocalisation. Mm-hmm. waaye nañ ñu fay homme d'affaires te du mm-hmm. d'affaires du ñii di soog a fal Baye Moussa tey même homme d'affaires boo gis mu nekk ci jamonoy construction ça. laaj ko parce que prête noo la homme d'affaires benn dugalul xaalisam actuellement ci ben investissement parce que xamaguñu ban situation mooy am nguur gu bees la xam nañu nan lay demee. lii mu wax ni téeméeri dëgg la téeméeri dëgg la construction wu guddee nga fa defee nañu sous-préfet ba fa nekk ñu ngi continuer def lu leen neex accaparement littoral boo xam ne jaaduwul tegul fenn. waaw. teguwul fenn. liñ fi war a lijjanti moo bari. non dëkk bii liñ fa war a lijjanti lépp xalifa. <laughs> liñ fa war a lijjanti lépp xaju fi. loolu nag loolu nag mënoo fal ay nit ñu bëgg indi jubbanti jub ak jubal nga bëgg leen a laaj résultat léegi léegi loolu mënut a nekk moo tax nag ñuy jàppale mag yi ak xam nga ba moo tax bu leen dem ak émotion. daan naa leen koy wax bi avant Macky Sall du folleeku. ma ni leen kii ngeen jàkkaar lool bu ngeen demee ak moom émission mu rendi leen digg ba cëg mhm. da nga koy nangul compétence am ak xam-xamam pour def ko face tenir ko teg noonu itam la situation yi mel bu ñu topp benn émotion bu ñu topp benn nangam nangam am leen lucidité lañ koy wax de ah am leen lucidité jàkkaarloo ak détracteurs yi ak fexekat yi ak opposants yi nga xam ne mënuñu opposé wu dañuy tâtonner donc jàppale ñu fi nekk pour ñu def résultat ci Sénégal ñu ngi soog a mus président bu yaakaarlu ñu ngi soog a mus président buy bàyyi ñu ngi soog a mus président bu yaru est que dégg nga li mhm. président bu yaru ñu ngi koy soog a mus. bu yaru président bu xam dund kaw ak dund taax président bu am bunt yi mu sàcc te sàccul waaw ñu ngi koy soog a mus. en ah, bon entendeur. pour jàppale ko daal li li li naar Fall wax rek opération yoole yoole boobu waaw waaw ah. yoole yoole. président bu mën tajwid du wax jërë eh. jërë du wax. waaw <laughs> voilà mu ngi noonu kon. dañuy